laqil lisaani waxlulan minhu lunqad waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad waj'al kalaami raashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 633 77 56 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sangub sang yi sayduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu dëppoog lool xikma bi ñu andi woon démb te muy e, farluloo jullit bi ci mu gën a fonk dundug ëllëg ci dundug tey te demuñu daane woo daanale woon sunu kàddu ci e, borom xel mu naqari moom mii ñuy misaal ci muy dof boobu nga xam ne nii dafa dëkk ci dëkk bi te amu fi lu rut as këmb su woyof te ba dëkk bay lakk mu gàddu këmb sa taxaw ci buntu dëkk ba di rey nit ñi nga xam ne ni ñoom dañuy rawale seen alal yu diis ngir bañ mu lakk di leen wax ne tey ngeen xam ne bari le moo bon loolu mënees na cee déggee xadis bi ñu andi woon démb waaye bii ñuy bëgg a wax tey it mënees na ko cee déggee ba tey ndax xadis bi ñuy wax tey yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne ëllëg yowmal qiyaam yi maanaam mooy ñu ñàkk ñi ñooy njëkk a dugg àjjana lu mat juróomi téeméeri at ñi amoon alal doo ko tàmbalee dugg te ñi amoon alal mooy ñu baax ñi de jullit yu baax yi am alal ba noppi di ci def lu baax waaye lu tax ñi ñàkk ñoom njëkk a dugg mooy ñoom seenu breg la ak seeni xisaab dafa gaaw lool ndax lañ amoon daa bariwut lañ amoon a kus néew bu ñu leen tàmbalee rek la as as ndiir rek ñu daal di féete boor ñu daal di tàbbi ñoom àjjana muy faqiir yi ñu ñàkk ña bu defee nag ñu woomal ñu nekk fa nag ñuy lijjanti di lijjanti di lijjanti looloo waral ñu fa yàgg moo tax mu ne yadxulul fuqaraa'ul janna qabla al aghniyaa'i bi xamsi mi'ati aamin nisfi yawmin waaw ñu ñàkk ñi ñooy njëkk a dugg àjjana juróomi téeméeri at ñu woomal ñi doog a tàmbalee dugg te loolu mooy genn wàllu genn wàllu bisu àllaaxira nga xam ne kon àdduna ak àllaaxira mbokk yi wuute na wuute goo xam ne nii ah ku leen di gam-gamle ak ñàkk xam la ndax dañoo wax ne benn bisub àllaaxira mooy tolloog junniy ati àdduna moo tax genn wàllu bis ba day tolloog juróomi téeméeri ati àdduna xoola rek bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee gane àdduna de woote fi lislaam boobaak léegi ni mu yàggee te boo ko nattee ci Eh, dunduk àllaaxira matagul ñaari fan maanaam fan la ak matu matu sax fan ak genn walla ba tey matagu ko bi fi Sëriñ Tuubaa ñëwee woote woote bu rëy bi ak yëngu bi li muy rëy rey ak li muy niru lu yàgg lépp boo ko doon natt ci fani àllaaxira ba léegi ñu ngi ci suba cuuy ga jant fenk gut kon dunduk àllaaxira képp koo xam ne nii moom nga bëgg a jëndee àdduna ak ñàkk xam daal na dugg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 man de euh, jàpp naa ne amut lu muy jariñ ab jullit lu liggéeyale yàlla ak delloo ko yàlla ci lislaam ak ci jullit ñi ak ci néew ji doole yi loolu képp la alal di jariñ waaye jariñul leneen te Sëñ Tuubaa loolu wax na ko ci euh, Nahju Qadaa'il Haaji euh, moo tax sëñ Bay Jaxate day wax ne lu fi jullit mën a am tey jii ci luy niru mbég la rekk na koy jaamoo ko sant yóbbal la rek na koy jaamoo ko sante ka daw kër gi deful kër gu ñuy teddee ka tëdd di wéy ku mën di fàttee ka bew bul fàtte mukk ko bew fàttee ko bon fàtte dee rek kay waral nit a bew burul ko nag fàtte dee kenn dootu reew a ko bew burul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew ñi boole woon penku ak waa sowu ñëpp yilif koo gis ci ñoom mi ngi tey jii ci paxam ne selaw kon nañ farlu bu baax a baax ci xalaat dund gu yàgg goo xam ne ni mi ngi ñëw goo xam ne boo ko nattoon ci dundu tey sore na sore goo xam ne nii mënee su ko misaal ndax dund goo ne kat benn fanam mooy junni ati àdduna googa dund mënee ko misaal kon atam ak weeram ak i atam ak téeméeri atam ak milliards atam kon nu muy toll kon nañ farlu bu baax a baax te góor góorgóorlu ci lu baax ci lépp luñ am